aouzu billahi samiil alimi min asheytaan irajim bismillahi irrahmaan irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala asraf almursalin sayidina wa nabiyina wa molana muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa sallam tasliman kasira mbokk yi ñu leen di nuyu di leen siyaare ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru ramadan nga xam ne lenn ci xaaji réew mi tey lañ jàpp ne mooy laylatul xadar donte xam ne benn xaj bu ko defoon ñaar fukki fan ya ak ñett guddi ga ñu ngi ci ñaar fukki guddi ñaar fukki ak juróom ñaareel gi tey yëpp baax na ñu ngi ñaan yàlla daal mu dëppali ñu ak moom ndax màggalal yëpp yow mi may déglu di ñëw tey nag ci sirru ismul aazam bu day waar bu garaaw boo xam ne dafa dafa dafa jot ñu waxtaanee ko ndax nit ñi ñoo koy insister di ko laaj muy lan muy nit ñi nga xam ne ñu ngi yor seen soxna te wóoruwuñ seen soxna ñu ngi njaaloo wala ñu yore seen jëkkër te wóoruwuñ ne seen jëkkër yaa ngi njaaloo te ci dara wala ñu yor seeni doom bëgg ku leen xaar bañ kerek ba kerek ñi am jëkkër ba kenn du leen amal dara te loolu dafa am solo xam-xam la mu suru yoo xam ne niñ ko jàngale dana dana arrangé ko góor gi dana arrangé ko jigéen ki su fekkee yàlla dafa dogal nga nga nga yor soxna wóolu wuloo ko te jàppuloo ko defal defal gàllaj gii jëmee ci yow da nga ko aar moom da ko dimbale ba ba fu mu dootu ko mun def wala su ko naroon def rek xam lu ko gaar te loolu mooy feeñ ci ku góor ki mooy feeñ ci ku jigéen ki kon xam-xam boobu dafa jaar jàngale seen mbokk si Habib Seck moo ñëw loolu nag nit ñu ñoo mooy insister ngir ma jàngale ko kon mbokk yi si noonu da ngay bind laay ji ngay bind da nga koy bindi te boo ko bindee da ngay wut xobu lakkut nga boolante ko xob bi nga takkal ko xale bi képp ku ko def benn ndaw suusu kenn kenn mënu ko jëriñoo muy buy ku jigéen sa soxna yi kenn du ko jëriñoo ku ko tim buy jigéen ju amagul jëkkër ku ko tiim doo doomam denc lu kon mbokk mi yow mi nga xam ne da nga bara bëgg a aar xale bi ba kenn du laal kenn du ko jege defaa li li yow moo gën a wóorugum wa maryama ibnata imrana lati ahsanta farjaha fa min rohina wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kitaabihi wa kaanati min alqaanitina laaye ji ngay bind ñetti yoon nguur ko bu boolente ko ak téere bi nga def ko téere takkal ko ko mucc na ci kattanu borom bi subhanahu wa taala su fekkee da nga bëgg dafa nekk koo xam ne nii magum jëmm la xam farata xam fi muy teg tànkam xam fu mu jëm te nga bëgg te te nga bëgg mucc ci loolu kon yow kon yow kii kii nga bëgg aar di borom jëkkër la wala borom jabar la da ngay dem nga uti nga dem uti bi tulli graisse bi graisse tulli original di nga graisse tulli képp ku ko def sa sakkara yow nga ànd ak sa soxna benn mbindeef moo ko jëriñoo fekk mu ngi ànd ak fekk mu ngi fekk mu ngi nekk ci biir sëy bi bu ko jigéen defee ci sàkkaaram ci ci ci pëyam ak borom këram dootul tiim beneen jigéen ba keroog yow mal xeyam kanaa ngeen tàggoo yéen ñaar lii dafa jar xam dafa jar xam dafa jar xam ñoŋee la gu garaaw goo xam ne ni ñëpp lañ ko war a bàyyi xel def ko maa ngi ñëw nag ci beneen boo xam ne nii moom daf dee la ku lu wuuti soxna dafa faatu ku lu ci ku dee dafa garaaw rek da ngay xaar ba bisab àllarba ci digg diggu njoloor àllarba maanaam deux heures jot na nga nga nga gas renu pofton dagg ren bi nga wut nga wut fett jit cetal fett jit boole ci téere bi boole ko ren bi nga bind laaya ji nag laaya ji ngay bind wala saar wi suratu hu masati wala li ko li hu masati ngay bind mam jax tak nga bolante ko renu poftan bi nga gas ci digg bëccëg bi boole ko fettu jit nga leem téere bi ñaw ko takk ko ci bëccëg bi ànd ak soxna ci bëccëg bi ku ko tim dee billahi ma la ko wax wa sallallahu wa sallama wa barak salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mu ñëwaat ci beneen xam